fële ca Guinée kenn ku ne xam na ni kii di Alpha Condé dañu ko def coup d'état ñi nga xam si nag ñoom ñooy CEDEAO ñoom ñi ngi exiger militaires yi libéré kii di Condé ba pare tamit di exiger waale ci retour constitutionnel ñu ni lool lay bu amul ay sanctions mën na si am comme ni nga xam si noonu la ko secrétaire général bu Nations Unies di Antonio Guterres defee ñi nga xam si tamit ñoom ñooy waa CEDEAO noonu la ñu ko defee mooy condamné coup d'état bi nga xam ne si ni am na fee ca ci dimanche 5 septembre 2021 bi benn communiqué ci président en exercice Daouda Dankwa Akufo-Addo di exiger respect intégrité physique bu kii di président Alpha Condé waaye tamit di soññiwaale ni dañ ko war a libéré ci ni mu gën a moom ak ñi nga xam si ñoom lañ jàppandoo ñi nga xam si ñoom ñooy CEDEAO décision bi nga xam si putschistes yi jël nañ ko pour dissoudre lii di constitution bi ak institution républicaine yi ñoom li nga xam si moom la def moom mooy xaajji leen waaye tamit tënku leen ci ay sanctions xam si dina leen personnel ñu ngi ba tamit demandé ñi xam si ñoom ñooy force de défense et de sécurité yi ñu continuer di woyal li nekk ci posture républicaine